télé bi bégal sama askan Ladoum TV Ladoum TV ding gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu yaram santé animal la saytu sama la nu ci Ladoum la kàddu bi nga mën a wax salon baa ngi ni ñi délégation Tivaouane la ñu ànd ak président Assane Ndiaye président Khadim ak ñoom Sakho Gueye ñoom ñoo ñëw ci salon bi stand Saldec bi après waxtaan nañ ak euh, ñi fekk ci salle stand bi jël seen contact ñu ngi leen di invité nag incha allah jox joxante loxo ak ñoom pour sunu salon bu mag boobu nga xam ne ñu ngi koy waajal. na lu mu bëgg a waa Saldeng nga xam ne première édition Saldeng ak gis naa am nañ ci conférence de presse bu rëy. bu rëy boo xam ne réseaux sociaux yëpp la ñuy daje. fi la ñuy daje invité la ñuy yëpp incha allah. international réseaux sociaux yëpp. fii ci salon Saldeng. fii ci terrain Pape Diop. incha allah 24 vendredi. Mm-hmm. képp ku yëngu ci càmm gi. wala mbéy mi. soxla nañ ñoo ko déggandoo champion bàcc moo nekkoon ci kàddu gi ànd ak euh, seen élément Moussa Fatou Al Boussane di waajal première édition bu salon de l'élevage départemental de Dakar un voyage de mille lieues toujours par un pas. Mm-hmm. incha allah. waaw euh, salon Saldek baa ngi nii euh, waa association des éleveurs de Bambey ñoo fi ñëwoon gis ngeen ñu ngi noonu Saldek salon de l'élevage de département de Kër Massar ñoo aaye war a def foire bu rëy euh, nekk deuxième édi première édition di première au 21 janvier 2024 incha allah ci kattanu suñu borom fële ci cité Sonatel gis ngeen dañoo ñëw ba ci biir foire bi jënd fi benn stand. boo xam ne pour def seen communication moom ngeen di gis nii euh, salle bi nag chaque jour chaque instant da ngeen di gis nit ñi dañ fiy ñëw rek salon bi day fees dal ay information ak communication renseignement yi ñii di jënd ay box voilà ñu ngi noonu ànd ak seen i hôtesse moom laa leen doon wan ni kii mooy xaadim nag kenn du leen ko présenté di waa Bambey moom mooy ambassadeur Bambey ak euh, euh, fale croisement Ngoundiane ak Diourbel ak Eh, fële Ndengler ak Touba Toul yëpp moom mooy seen représentant moom moo nekk ni ànd ak am nag merci beaucoup Diallo 2STV mu ngi noonu nag kii nag mooy borom gétt gi mooy Diallo 2STV dina ànd ak yow saytu wergu yaram saytu sama laanu mi dundee fii jox la kàddu gi nga sa jaar la dara raw mm-hmm. visibilité dinga ko am promotion dinga ko am na nga ci émission jaar-jaar nga am ndam Ladoum TV télé askan mooy wane fi nga mën ndax ñëpp xam Ladoum TV nit mooy sunu télé Ladoum TV di fa am béto fii ma santé animal fii ci Ladoum TV Ladoum fa am béto fii ma